toog man yéen ñaar laa fekk ngeen toog xam nga liñ naan buñ lay siiñ xaw buñ lay jiñ lan fekk la ngay socc soo nangam am na ñu ko olof yi léebe ah buñ naan jamankee da lay jàppale ñoo fekk ngeen toogandoo ni yéen ñaar est-ce que du neex a gëm. waa Babacar asalaamaaleykum damay sant yàlla sunu borom xam nga Babacar damay sant yàlla di santaat yàlla yow xam nga li am may wax loolu jam xam na ko lii lépp sunu borom la dama koy san bu baax di ko gërëm di sant sama ñaari waajur bu baax aussi. di sant sama sëriñ sëñ Modou Xabaan Mbakke di sant sëñ Abdou Karim Mbakke may sant waa. liiroo ngay ñëw wuli liiroo li daa mel ni daa mel ni liiroo doon wax est-ce que niru dëgg. yàgg Babacar waaw ñaar ñi kii kii kii man lu ma gëm. moom mi damay kii mun na ma wax man lu ma gëm. waaw lu tax non lii leeral na ko. mais lii lan la lii. xaw xoolal dama fekk ñu ñu ñu toog. est-ce que émission la waaye ban émission la ñuy tourné yow boobu léegi ñoom ñaar ñooy nekk guddeeg bëccëg di nekk démb ñëw ànd doxaani dégg naa ci guddi gi. doxaani ànd nañ doxaani ay wéyu lan ñoom ñaar mën nañu ànd waaye su moytul damay saytaane la saytaane la waaye nii la mën a mel foofu la dëkk parcelle waaye <laughs> lii dégg leeru day it bàyyiwut mu set nee na ay saytaan ak it bi ñu daan doon di ko di ko comprendre moom aussi parce que. mais moom lu ko metti sportif wut xam nga tey moom man yàlla dafa ànd ak man. waaw woon nga fi yàlla de. ànd ak man liiru mu toll nii amatul am ah, moom fi mu amatul jàmm dafa xaw a dof parce que moo du makke baax yaay couture nangu naa ko ci moom. waaw. woo na ma. li baal ngay def lu tuur liir yi soxnaam sax boo ñëwee de la ko woo ma vraiment damaa set ba guddi yàlla wóor ma ne daal man wuli daal neex na ma lii li neexul nag. maanaam ba biir këram ay soxnaam ak i magam ak ñëpp yow la ñu àndal. comme moom tey ji jàmm la yàbb. mais na dem këram ku laaj leen. wax ak waa kër. waaw boo ñëwee mën la àndal. fa muy joxe dépense. soxnaam mën la àndal. liiru na gëm yàlla yàlla ànd ak man dem fii bi ñëwee ci hôtel bi vraiment aussi may gërëm waa hôtel bi Xadijatu Sow moo baax moo gore waaye xaws waaye xos man nag dama dégg anglais. nu la neex waxeel. waaye xos mooy. fas bu weex weex. Xadijatu hôtel bii mooy waaye xos. dem bi ñu fi ñëwee dama gis rek. ne waay waay kii. kii seet. kii neex na ma yàllaa ko bëre lii neexul. neex ban ndàq neex. ma ne ko ki laay bëre mu ne ah wuli kii yaa ko di waa lii neexul. Ah, kay. mu ne ma kii mag mu ma wuli kii kay bëre ay kii du mag dëgg ko ne ne ay yow moom sax jamay bi jamay kee yow sa bi moom. tuuti na di màggat ma ne waa xarit moom dimbali ko moo tax bi tey aussi ndek wax. man damaa xëy suba teel ndekki mais Xadijatu co Xadijatu Sow moo woot ca kaw joxe instruction neen wulli toppatoo ma ko bu baax mais waaw chambre climatisée la ma jox liiru jaan li nga que moom ma yow yàlla ma la ah, bi bi ventilo dama ko ne lii dem courant pile du benn loolu sa waaja Saliou Khoulé ku doon wax de. man nag courant lii mooy pile <laughs> lii neexut. neex na ko dàq neex courant pile nu benn. waaw mais problème bi seen combat dama ci dégg Modou ak Balla Gaye yow luy sa relation ak Balla Gaye wala Modou Balla Gaye sama xarita Balla Gaye sama xarita waaw sama xarita sama combat la mais combat. Modou Lo parce que kii vraiment dafa sonoon ak Modou Lo. lu ci Modou Lo lu ci yoonu Modou Lo. non kii dafa yab Modou Lo man maa ko bëgg a fajal Modou Lo. Ah. fu mu ne Balla Gaye Modou Lo yab Modou. yaa bëgg a Modou ko xam xam li nga nit da ngay respecté institution dañuy respecté président. kon daa bëgg a xëpp yi. roi de sëñ dañ koy respecté. kii Modou Lo dafa nekk waa mu bëgg ko yab loolu ma naqari comment bi noonu yow mais dinaa ko gën kii dinaa ko gaañaa. Modou. c'est un roi des arènes. pourtant dégg naa mu ne dóor mu daanu xaj na seen diggante te na day am yaa moom. ki dàq lambal la ñuy doomu daanu ki dàq lambal yi kenn ko doomu daanu. ah waaye kay léegi yow itam luy loolu ko dàq lambal. maa ngi liiru ki lambal yàlla nañu ko doomu daanu. liiru mel ni dagañ lay feeñ wala day lambal. ki ki ki dàq lambal rek yàlla nañu ko doomu daanu. Modou Lo déggante ngeen ci combat bi. toujours. Hmm. non Modou Lo dégg nga war a ñëpp war ko jox cër man. Balla Gaye bi ñu dëkk roi dañ ñëpp ko nanguwul mais moo ñu nekk roi fu mun na di classe Modou Lo waaye li jaam du bay doomu jàmbur yow kii naa ko gaañaa ah. man waa génération xereñ bi ñu ñëpp ma woo ay ñoom Papis ay ñoom Serigne Ndiaye Adja bu xereñ Demba xereñ loo man seen groupe léeg-léeg ci laa bokk groupe ah. groupe dama xarañ yoobi kii moo gën a sonal Modou Lo ci réew mi moom Lirou Diane nii ah ah cause de Balla Gaye pourquoi ça. ah est-ce du ni Balla nekk rek kama tax. mais il faut arrêter. ku koy arrêter. man na respecté instruction laa wax roi des arènes dañu koy respecté. mbaa du moo doy buurub làmb ji. nga aussi xam nga fi ne boo waxee kenn commentaire ñeneen ak bala Gaye ñeneen ak kii mais nañu ko nangu to dee. ñu nangu ko te duñ mooy seen roi des arènes Balla Gaye nekk na fi roi des arènes moo doo dëkk ko nangul Ama Sène nekk na ko roi des arènes moo doo dëkk ko nangul kon Modou Lo bu nekkee roi des arènes nan ko ko nangul ñëpp nag nag ko ñëpp nangu même même ku ko daan mooy sa roi mais ma laaj la leen Aziz ci diggante bi la nga yéen ñaar kan nandal ci yéen non Aziz man la anal yow xam nga daaw Tiwaawoon man maa ngi nii di xam nga ne daaw fa fa ma fekk bu dem nag ñu parce que Aziz dina ma sax ren il faut foofu nga koy naaxee mu ñëw. <laughs> jox ko si boo xam ne bu ko naanee tootut. ah Aziz ma ni loolu léeru. non man géej waay laa dëkk xam nga léeru géej waay laa dëkk mooy monument bi mais xam nga vraiment damaa damay daane monument bi. da nga waaw. waa géej waay nañ ko nangu. et puis dégg naa leneen lu ngeen di xëccoo yéen li ngeen di xëccoo daa bëri bawal yéen a ngi koy xëccoo moom nga ne ndàngal mën a dëkk yow moom ku ne xam ne reefan nga dëkk dëkk ak bawalam nga tey la moom liiru mi waaw nangu naa ko mbaw gi xaytam naa ko comprends nga man tabaa naa ko man maay moom bawal ndàngal ma non jaar ah, liiru mel na ndàngal dëkk géej na fa de. géej na fa kañ na fa géej man sax su maa ngi reefaan géej waay man bëgg na ko. Ah. mais man mu ëpp ma géej waay bari kes Aliou Seye Sega lii jaan dafa mbir même géej waay boo ko laajee fan yee passé Sega man du doo bëgg di wax parce que bu su waxee dañoo wuli de jaxasee waa géej waay mais dalam mu ngi sama kër. dalu Ah, wulli loolu ku la jox dàll liiru. ngeen baal ma xam nga dama bëgg di dafa xamul. ku ko laa soxla. actuellement nii. waaw mbir ñëpp mën lañu àndal. sa da da mu woo ma. ah yow te da ngeen bëri la joxu dàllam. Alioune Seye de chaque su mu Euh, Rhône vraiment Rhône aussi Rhône moom dama koy gërëm Rhône en tant que entraîneur Rhône Rhône yaa baax yaa gore. kii làmb Rhône ngente. samedi bi passé. ngente dimanche. ngente ko. baal li ngay wax. demut ndawtal man yooyu dama ci dem ma may dama ko wax ndawtal ko. ndawtal ko. Rhône ne yaa baax yaa gore. te moom muy entraîneur ndotalu. ne ma man nekk ku ma yëg laa xam de. kon na problème. Roon. ku ma yëg laa xam. déedéet bu may sa entraîneur tey yëgoo ma. waaw yow mi ma yëg yow laa xam. man dama ko ndawtaal. mais woyu ma Abdou mu ngi état si ñu koy nuyu di koy ziar dégg naa da lay yónnee xaalis bari bëri nag. Abdou vraiment Abdou Diouf moom mention spéciale mu ngi may booleeg ak ay nit ñu bëree bëri ñu may jàppale surtout bii géej waaye amit ay dara aussi.

coow li jeex. Amadou Ba Amadou Ba moo amoo ko. maa xam nga ne kontaan naa ci yow. maa ngi lay siyaare mais ñun jaan na bay Jamaïcain mi attaqué Jamaïcain forut ak man Jamaïcain promoteur la. di sama rakk. Jamaïcain dama jox big pato dama jox big pato ma daan ko est-ce que am na Jamaïcain laata may bëre ak big pato ñu jaan jot na avance hmm. waaw. laata ngay bëre ak parisien. laata may bëre ak big pato. jamaïcain jo doon na ko avancé ne ko buuli daanee kon jamaïcain moom lii daan mbërëm la. même sax bu Lutte TV ñu koy attaqué ci combat bi ne nañ yow la faral. lii di daan léegi nee na même boo boo ñaar de da ko attaqué këram bëgg xeex moom mu ba lii mbaa jàmm la. kon de liiru daa mel ni amatul ay mbokk ci dëkk bi xanaa. Lamine sax du koy attaqué Lutte ku wax nga faral nga mu ne Babacar oh, tur bi lan la léegi nag ku ko waroon <laughs> nee yow nee na yaay ku ko. Lamine nee na kon seytaane damay kee seytaane waaye yow. kii yaa boolewu baax yaay léegi la ko ne Modou Mbacke seytaane bay naa Modou Mbacke Masila Diop mu ne ma xamu dara nag Masila. nañ ko yemale foofu. nee na Masila xamut ma la Cheikh Ibrahima Keita ñu ngi koy nuyu surtout Soundiata Keita boobu le roi du Mandeng. roi du Mandeng mooy roi de. kenn day moom. ay Soundiata Keita ay maamam. Soundiata ay maam ja. mais di gërëm ñëpp. Serigne Cissé bu sëñ Babacar si sama xarit ba. sëñ Cissé moo baax moo gore. maa ngi koy nuyu depuis ñaari tali ak benn tali. bu sëñ Babacar. nit ku baax sa dib sëriñam si non sëñ Babacar du ma am damaa juum. sëñ sëñ Babacar Sy sëñ sëñ Babacar Sy. ku baax nga sëñ Cissé. lii du jaan mii astafurlah sëñ Cissé. magatam jaan mii. jaan Paa jaan eh waay Paa <laughs> jaan nawet bi jaan kenn Paa jaan ak fii. Maaru Paa jaan seen dangare laa jiyee. yaa Paa gore.